wax naa ko démb dama ni lu mag def ba dee bu dekkee jàpp naa ne dina ko baax ñu de Géejawaay suñu sag dafa sàggeeku ñu war a fexe ba lijjanti ba nga xam ñu ñi ñuy représenté assemblée nationale nañ doon ay nit ñoo xam ne fu ñu leen wonee duñu sëkk ndax li xew ci mairie bi rek doy leen sëkk nag waa Géejawaay nañu sagal seen bopp rikk gaa yi géejawaay nañu sagal sunu bopp am na yoo xamante ni du sag te dafa ñaaw te nag géejawaay damay wax ni mérité na lopp loolu suñu yaay yii suñu baay yii jur nañ fi ay doom yar leen duma ma ne kenn dafa yées de waaye am na lu gën loolu te ñooñu gën loolu bu ñuy choisir nañu xool li gën ñu def ko du ci xuus duma ma ci sori waaye daal li may mën a wax mooy géejowaay géejowaay àdduna ak ñuy seetaan de ñun ñuy seetaanati ndax foofu la ñëpp xaar nañu fexe ba buñ fa dem am na loo xamante ne du sat nañu waxante dëgg. këttëgéer yi ñuy jox ay responsabilité ci dëkk nga xam ni tekkiwuñu dara seen réputation ak seen lépp ñu ngi ko sos ñu ngi ko basé ci waxal nit sosal nit ak làmmiñ wu rëy loolu bu ñu ko nangu donc c'est un appel que je lance à la jeunesse aux habitants de Guédiawaye pour vous inviter à faire le bon choix à faire du moins les bons choix loolu du ma ci préciser fa laa koy teg